Eh, yàlla dogal nag démbu dañu jot ay ndégét yoo xam ne waxtaan la woow kenn ci wahabiyuuna yi moo ko doon def eh, du caageen moom rek am xalaatu def loola itam waaye eh, ñoom ñoo booloo boole seeni xel ak seeni xalaat ku nekk am wet guñ la féetale ne ñun daal sunu mébét lenn la mooy sikkal ak a gàkkal téere bii di jawaahirul maani e, loolu nag mu mel ne la yàlla doon wax ci alquran sax ndax ñoom def nañ ko e, échec ga di leen topp waaye saa su ne nga gis ñu defati leneen ndax daaw ba ren euh, silsila boobu maa ngi koy dégg wala boog xaw ma séminaire laam euh, ab toogaanum ñaxtu laam yu ni mel yoo xam ne ñu ngi koy amal tuddee ko jawahirul maani fii misaani shar'i waaw euh, ma ne leen nag loolu méngoo naag aayab alquran ba yàlla doon wax ci suuratul anfaali inna alladina kafaru yunfiquuna amwaalahum liyasuddu an sabilillahi yàlla ne fa sa yunfiquunaha summa takunu alayhim xasratan summa yuxlabuun yéeféer yi boole nañ seen doole ak seeni xalaat ak seeni xel yépp ngir yoonu yàlla bi ñu baare ko ba kenn du ca jëm ak ku ca jëmit ñu fexe la caa génnee aw aw loola ci yoonu ndëngate yàlla na nag comme ca ësal dama dogaloon ne mbir mi day continuer kenn du ko baare kon nag lu ci waay mën a def ci xaalis lu ci waay mën a def ci énergie ak xalaat dangay perte xaalis ba ba noppi échec dal la <laughs> nga am defet loolu nag moom la euh, wahaabi yu ne yi am ci seen diggante ak jawaahirul maani ndax kañ lañ ko tàmbale woon di ko xeex ak di ko sikkal kañ la kañ ba léegi nii ana lan la seen xeex boobu wàññi ci jawaahirul maani ana lan lañu sikkal loo xam lii ab sikk la ci jawaahirul maani ana lan la baare ci nit ñi dara dëgg nag moo mel noonu boo koy xeex yow yaay sonn yow mi ngi mel ne kanaatixin saxratan yowman li yuhinaha falam yudirha wa awha qarnuhu waay lu maanaam moom ku dem ne mboontaañ bee dama koy mbëkk ci sama bopp nii di ko mbëkk ba mu daanu yow yaay mujj sa bopp toj deret ja bëri te dara du changé ci montagne mënam taxawe jawaahir itam noonu yi ah. waaye du tee ñun itam comme sunu rôle dañuy njaboote njaboot goo xam ne seen tée seen àlliwa jotiwul ca jawaahir wala jotiwul ca la jawaahir di wax ak na ma koy waxee jotiwul ca masala yooya ñu dimbali leen loolu devoir la ci ñun moo tax duñ ci xàddi ñun itam waaye su loolu amul woon kuy wax ci jawaahir duñ la déglu duñ la tontu duñu am sax booba jot na nak ñi wax ci jawaay nek ay gone yo xam janguju mënu ñu firi ab baat da ngay gis ku ci ne boy wax baat bi boko jëlé ci jawaay tim non nga koy liré do ko firi ndax xamoo sax lu muy firi nak aslan waye comme suñu waréef daf caa bokk léra rek ñu euh wacc ba tollok ñom pour mëna tontu seeni wax wala sax ñu koy déglu Euh, daf cee am nag ci seen biir kenn koo xam ne dañ koo dénk masala mu ñuy tuddee waxdatul wujud ne ko waxdatul wujud bii fexeel ba mu nekk ci biir jawaahir fexeel ba génnee ci jawaahir lu ñuy tuddee waxdatul wujud euh, léegi nag fexeel a xalaat waxdatul wujud goo xam ne mafhum bu bon a bon la boo xam ne ku ko gëm nekk yéeféer boobu ngay jël di présenté présenté bañ xam ne lii lu bon la nga dem a nga ca jawaahir te fexe ko caa génne ah lañ la sant de rëy na lool waaye génne ko ca nag mooy jafe dox ba génnee ko ca looloo jafe kan lañ sant loolu wahaabi bu ñu wax Moussa Cissé loolu lañ ko sant moom daa dem ba étiquette am mën ngaa wax Moussa wax alias Wahdatul Wujud ndax lan moom ci wax datu wujud kese lañ koy dénk moom lay wax même bu dul ci ci tarixa tijaan tam muñ ko ci wàllu tasawuf moom lañ koy dénk maanaam kon moom gëm na ne xam na wax datu wujud ñamu bokkal itam gëm nañ ne moom xam na ca dara gëm na ne li muy wax maîtriser na ko ñamu bokkal itam gëmloo nañ ko loolu wala gëmal nañ ko loolu te loolu lépp dara amu ci dara amu ci fi dara gën a ñàkkee am nag mooy bu bëggee jël waxdatul wujud googu mafhumam yu bon yooyu mu def ci xelam mi bu ko bëggee jël isqaat ko ci jawaahirul maani yi wàccee ko ci jawaahirul maani yi pour génnee ko fa foofu nag ay fene kese ngay gis ndax mbir foo xam ne néewu fa mënoo ko faa génnee koo xam ne gëmul lii mënoo ko koo gëmloo ay waxam a ngi nii mënoo fexe ba gëm-gëm boobu mën caa génne waaye nag ab fenkat mënul def lu dul su xamul lu mu war a wax itam di fen rek loolu nag moom moo daal musaa boo amoon lu ma koy ñaan man loo xam dama ko ko war a ñaan dama ko musaa dimbali ma ngir yàlla nga bàyyi fen benn càkkute boobu rek laa am ndax soo ko defee da baax danga gën a jëm ci kanam waaw da nga waaye boo ko bawut <laughs> mën ngaa dem sax ba nekk yéeféer ndax innama yaftari alkadiba alladina laa yuminuuna billah ñi gëmul yàlla ñoom képp képp képp ñooy fen kon nag jullit buy fen man tiit naa ci sa waaye nag problème bi mooy wahaabiya mooy aw fen moom maanaam lépp la ci biir ay fen la nañuy doxaleek lañuy ñuy gëmloo nit ñeeg nañuy décortiquer la xatta mustalahaat yi ñu am di ko doxal mustalaha yi dëgg la de misdaaq bañ koy jox ay fen lay doon ah wahabi moom ak ak kii fen moom dañu dañoo bokk ci rek soow la loolu moo tax ku xaddi ci ñoom bokkoo ñëpp taxaw rek saa su wahaabi waxee dara war nañ ca am tontu ca saasa lii muy wax nag waxdatul wujud la tudd lan mooy waxdatul wujud ci Moussa Cissé mooy yàlla ak jaam yii ak man ak yow ak xaj bi ak miir bi ak e, montagne bi ak garab gi ak e, bàyyima yi ak malaaka yi ak nangam lii yépp moo tudd yàlla yàlla du kenn maanaam kenn la mooy lii lépp moom ngay boole mooy yàlla yàlla mooy jaam bi jaam bi mooy mooy yàlla léegi nag képp koo xam ne pas-pas boobu dafa nekk ci yow yéeféer nga lan moo tax nga nekk yéeféer ndax yow mënatoo jaamu yàlla li tax mënatoo jaamu yàlla ndax yàlla mooy yow yow nooy jaamoo sa bopp yow moo tax képp ku ko gëm doo jaamu dara loolu la loolu mooy waxdatu wujud ci Moussa Cissé jaam bi mooy yàlla yàlla mooy jaam bi amul différence ci diggante bi amul tàqale amul nàngam dara jeex na waaw loolu moom Moussa bon na di mu ne li ci li nga ci xamul Cheikh da koo gëm kon Cheikh est-ce que jullit la kon waaw fan la ko gëmee nga ne mi ngi ci jawaahirul maani jawaahir boo xam nit ñi bañ koo amee sa maam ju duul di ko liir ay nit benn téere buy dugal nit ci tariixa tijaan jawaahir kese la jawaahir ngay am ci taraajim yi diw moom ba mu liiree jawaahir ci la nekkub tijaan diw ba mu liiree jawaahir maanaam jawaahir daa àgg ci darajay leer goo xam ne ku ko liir sax loolu dana dugal ci tariixa bi ku ko liir fonk bi ku ko fonk ki ñuy wax ay waxam muy cheikh loolu amul sikki sàkk ah. nekk téere boo xam ne dañ koo firi dañ cee def ay suroox dañ koo décortiqué dañ koo toj dem ba i'rab am na téere tii boo xam sax day li'rab ay mbir yu ci nekk wala boog day day euh, day li'rab Jawharatul Kamal mais day day décortiquer ay mbir yu nekk ci biir jawaahir am loo xam ne koo xam ne sax jëloon na pour way ko way jawaahir bi def ko nazmu dégg nga eh, keneen def ci ay masala yuñ ko laaj ci biir jawaahir mu ko maanaam borom xam-xam yi di ci wax di toj di toj ba tey ñu ne ñu dafa ñu ne ñu jawaahir daal Cheikh daf caa wax loo xam ne ku ko gëm yéefér ngay doon te lam lam cay wax mooy yàlla ak jaam ñi benn lañu du seep amut séparé naan kii mooy yàlla kii mooy jaam bi yow yaay yàlla yàlla mooy yow benn la léegi kon jaam bi moom nu muy nekkee jaam moom mënut a nekk jaam yaay yàlla nooy nekkee jaam mënutoo nekk jaam mënoo jaamu kenn ndax yow lu la gën a màgg amul di yow yaay yàlla yow loolu mooy wax te lool la ne daa nekk ci biir jawaahir maanaam tooñ gu toll noonu musta am kenn musta tooñ tarixa bi tooñ gu toll ne nga ne leen da ngeen a gëm waxdatul wujud ñu ne lan mooy waxda gëm waxdatul baatu waxdatul wujud am xëy na keneen mën na ko jël tekkee ko neneen waaye waxdatul wujud gan lañ gëm nga ne waxdatul wujud gi gëm mooy yàlla ak jaam yi amul tàqale yàlla mooy jaam bi jaam bi mooy yàlla amul ci diggante bi dara léegi nag loolu nga xam ne pas-pas bu bon la te tariqa bi ñoo jëkk a leeral ne loolu pas-pas bu bon la moom lañu Moussa Cissé fenal ne moom lañ gëm te looloo nekk ci jawaahir te looloo nekk ci jawaahir léegi nag balaa may ñëw ci euh, li ci jawaahir sax Moussa la ñuy bàyyi mu wax ju lim bëgg a wax lan la. tey nag dañuy continuer ba tey ci même buntu boobu muy albaabu raabi waaye ci alfaslu saani faslu saani bi nga xam mu ko tuddee fii fadli wirdihi wa ma aadda allahu li taalihi wa sifati lmurid wa xaalihi kon buntu boobu mooy alfaslu saani ci albaabu raabi ci buntu boobu الشيخ أتياني كبير بنت بيدن كولاج لن موي معنى صلاة الفاتحة لن موي معنى صلاة الفاتحة بديت جواير المعاني بما يرمن مغي نكتي باس سوسانت علي حراجم لاجكو من وسألته رضي الله عنه عن معنى صلاة الفاتحة لما أغلق إلى آخره فأجاب رضي الله عنه فقال معناه الفاتح لما أغلق من صور الأكوان فإنها كانت مغلقة في حجاب البطون وصورة العدم وفتحت مغالقها بسبب وجوده صلى الله عليه وسلم وخرجت من صورة العدم إلى صورة الوجوب ومن حجابية البطون إلى نفسها في عالم الظهور loolu euh, mooy commencement wax ji ba ma dalee déglu nag Moussa Cissé muy wax ci wax waxdatul wujud ak tariqa tijaan ba tey mësumaa gis mu wax loo xam ne mafhum bi mu am moom dégg-dégg bi mu am mën koo génnee ci biir tariqa bi loolu musta am moom mësuma ko dégg dana jéem nag jéem maanaam fekk dara fexe ba mu nuru dégg-déggam moom te loolu nag ci ay fen lay dox pour lim bëgg mën a am ay fenn nag mënee su dox ba li nga bëgg ci diine ji pour saxal ko wala nga tuumaal ko keneen mu tuumayee mën a sax te mu jugee ci ay fen xanaa day fekk ay dofi kese nekk fi rek waaye moom nit ñi feeg ñi ngi fi nekk kenn mënu ràbb ay fen ngir tuumaal ko nit ci wàllu xam-xam mosuma koo dégg mu wax ci tariqa bi génne ci dara loo xam ne lii moom mooy wax wahdatul wujud bi nga xam ne moom la wax moom loolu moom amagul te du am itam ndax loolu amul ci tariqa bi amul ci cheikh amul ci jawaahir amul ci beneen téere te dafa am ci téere tariqa bi ay téere yoo xam ne dañoo ñëw ngir gëm-gëmam bi li wax li tuddee waxtu wujud dañoo ñëw ñoom téere yooyu ci tariqa bi ngir ware ne gëm-gëm boobu gëm-gëmu kéeféer la xam nga loo xam ne da nga koo ab tariqa naam loolu amul ci tariqa bi fu ko bind waaye sax dafa am téere yu wax ne gëm-gëm boobu nga xam ne yow yaa ngi koy jéem a dugal ci biir yaa ngi koy jéem a génnee naan fa la ne am ñu taxaw ne gëm-gëm boobu kéeféer la ku ko gëm yéeféer nga ku ko gëm yéeféer nga léegi man damaa xamul lool nan la man a nekkee par exemple nga ne tarixa tijaan dañoo gëm lu ñuy tuddee waxdatu wujud te waxdatu wujud mooy nàngam ak nàngam la nga ne mooy nàngam ak nàngam nga gis ci tarixa tijaan téere yu wax ne nàngam ak nàngam boobu gëm ko kéeféer la ku ko gëm yéeféer nga te yow nga ne seen sëriñ moom la gëm xanaa kon danga koo comprendre neneen nu raw noonu ñoom niñ ko comprendre te ñoom ñuy ay borom xam-xam ay muhaddis ay faqi ay usuliyun ay lu léegi nag ñooñu ñoom ñu wax ne li nga wax yow kéeféer la ku ko gëm yéeféer ga kon ñoom xam nañ ne gëmuñu ko ñoom xam nañ ne seen sëriñ gëmu ko amut itam ci seen benn téere ci téere tariqa loolu mooy yenu maanaam kon yow boo ko waxee buñ la dumawut maanaam yoon daa amul ci am réew rek wala boog dañoo àtteewoo lislaam waaye kon ca xaadi li la yóbbu ñu ñu ñu tànd parkat ndax loolu mooy tuumaal jigéen ju njaalowul nga tuumaal ko njaalo xadful muxsanaati al muminaati al xaafilaat loolu lay taxawe ay nit yu nekk ci sunna nekk ci saraatul mustaqim nga gëm loo ne lañ nekk kéeféer la lañ nekk ku ko gëm yéeféer ndax ñoom sax ñoom ñooñu ngay tuumal ñoo njëkk wax ne ku gëm loola yéeféer nga nga ne yéen moom ngeen gëm yéen toujours nag du am fum ko fum ko mën a génnee ci tariqa bi waaye nag dana dana wut nekk fenn rek di fa fenn ba ba ba mu tooy mu daal di dem feneen tey mi ngi ñëw ci jawaahirul maani fi cheikh di firee lan mooy alfaatixi lima uxliqa maandu ci wàllu xam-xam daf caa bokk soo fekkee kenn di firi ne lii de am na nangami maanaa daati wax maanaa yooyu yëpp maandu te daf laa waroon a yóbbu ci ne nga ne cheikh de ba muy firi alfaatixi lima uxliqa wutal na alfaatixi lima uxliqa ñetti maana yu jamtalu pour firi ko ñetti maanaa am na ko nga ne nag bokk na ca maanaa yooyu nangam nga jël li nga soxla noonu rek waaye nag nga fexe ba ku lay déglu yow mel ne cheikh bañ ne alfatix li la dana lii képp lay firi musul firi leneen te loolu amul ci texte bi nga ñu yóbbu ñun ne nañ fa dem loolu amu fa lan moo fa am texte baa ngi nii lan moo fa am ci page 60 daf ne al fatih lima ughliqa wutal nako ñetti mana mana bu jekk bi moy al fatih lima ughliqa min suwar al akwan fa innaha kanat mughlaqatan fi bihijab al butun wa surati aladam wa futixat magaaliquha bisababi wujudihi wa xarajat min surati aladami ila surati alwujud ومن حجابية البطون إلى نفسها في عالم الظهور إذ لولا هو ما خلق الله موجودا ولا أخرجه من العدم إلى الوجود لولو من فهذا شيخ مويوه من الليمة وحدك أحد معانيه بن مانا لكي ماناي الفاتح لما أغلق كون أمنا ينن مانا شيخ يوكوشة إن ينن مانا والثاني أمنا بنن مانا بوخم من ننكو الفاتح لما أغلق تموي أنه فتح مغاليق أبواب الرحمة الإلهية بسببه وبسببه انفتحت على الخلق ولولا أن الله خلق سيدنا محمدا ما رحم مخلوقا فالرحمة من الله لخلقه بسبب نبيه لول تمت بنن معنى من والثالث أمن بنن معنى والثالث من معانيه بكنا كي معنى صلاة الفاتح لما أغلق بعد بوبو mën nañ ko fire itam ne hiya alqulubu ughliqat ala shirki mamlu'atan bihi walam yajid al imanu madxalan laha fa bi daawatihi sallallahu alayhi wa sallam xatta daxalaha al wa taharaha min ashirki wa amtala'at bil imani wal xikma ñetti maanaa yaa ngi waaye nag Moussa dafa am benn boo xam ne jàpp bu ci jàppee dana am lim bëgg te mooy maanaa ju jëkk ji nañ ca dem nañ ca dem xool Moussa lan la wax ba noppi door caa tontu ndax li Cheikh wax fii moom leer na te loolu am nay xadis ami aaya alxuraan jawaahir amu ci lenn loo xam ne mënee su ko delloo ci xadis wala mënee su ko delloo ci alxuraan yow yaay wax xawma ko wala nga ne xam naa ko wala nga laaj ñett yooyu moo mën a nekk waaye lu ci mënta dellu ci sharia wala lu ci amul i lay wala loo ay caaxaan la loolu moom amul ci jawaahir xanaa ngeen wari beneen jawaahir moom waaye du bii de léegi nag musaa maanaa ju jëkk jëm jël lan la déggee maanaa jooju maanaam moom lan la wax ci maanaa ji ne maanaa jooju loolu lay fii firi mooy li ñuy wax ne yàlla subhanahu wa taala ñoom sufiyanke yi ñu ne yàlla dafa nekkoon kanz di sax benn xadis kuntu kanzan lam uraf fa aratu an uraf fa xalaatu xalqa fa bi arafuni ñu yàlla def na damaa nekkoon benn kënz boo xam ne xamuñu ma woon ma bind mbindee fi bala boobu bi ma bëggee ñu xamoo ma bind mbindee fi ci lañ may xamee kon nee na kon mbindeef yooyu wala aduna boobu suurul akwaan yooyu daa nekkoon lu ñu tëj mu nekkoon ci xijaabul butoon nekkoon lu ñàkk amul mu ne waaye ñu ubbi ko ci sababu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi sallallahu alayhi njëkk tijji loolu ubbi ko yàlla subhanahu wa taala faccal ko leeram nga mu génn yeneen yi génnee ci moom yeneen yi génnee ci moom loolu defe naa ne ko xam lan mooy wahdatul wujud boo déggee wax ji rek da xam ne foofa la jëm waaye nañ dem feneen ci biir bi muy laat salaatul faatihi nga xam ne fa lay gën a wax nag wax ju gën a leer ci wax wahdatul wujud fii nag ngay xame maanaam ñeme yàlla ak feni wahabiye yi buñ la indilee texte te texte bi liñ bëgg amu fa ci seeni wax ñoom la ñuy waxee lu amul ci texte bi yow da ngay jàpp ne ñi ngi firi ñi ngi ci texte bi di firi ñoom fekk génn ña nga ca leneen ndax musaa lim ñu bëggoon a gëmloo mooy dafa am waxdatu wujud waxdatu wujud daa am ci texte bii te waxdatu wujud ci dégg-déggam mooy jaam beeg yàlla benn mbir la benn mbir dafay amul tàqale amul ñaan kii mooy jaam kii mooy boroomam déedéet yàlla mooy jaam bi jaam bi mooy yàlla subhaanallah loolu la gëm te loolu mu wax ne mooy waxdatu wujud tariqa bi de nee na ku gëm loolu yéeféer nga maa ngi téere bi nii ku gëm loolu yéeféer nga loolu nga xam ne waa tariqa bi ñoo wax ne ku ko gëm yéeféer nga Moussa nee na moom lañ gëm ñu ne fan nga ko mën a jëlee mu ñëw fii nag waaye bi muy wax booy liir dangay xam ni fii mënoo fee génne dara kon faw nga keree ci biir biiri wax luñ cay mën a naan xëy na loolu mën nañ cee dégg li nga bëgg a wax yow yow sa wax yow mën nañ cee déggee li nga bëgg a wax waaye loolu du ci texte bi da nekkul ci texte bi amul ci texte bi fu ñuy waxee ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa yàlla dafa dagg ci jëmmam dafa dagg ci jëmmam bind ko ci nga xam ne boo ko waxee ki xamut dana wax ne kon ah kon de mën nañoo jàpp ne Seydina Muhammad daggit la ci yàlla maanaam jëmm yàlla kon daa am lu ci daggee nekk kii maa nga xam kee moom kon feela bokk naa nga kon yàlla ak ak Muhammad benn la waaye loolu sax xëy na wax du wujju la bu am ci ñaar benn nit ak ak boromam ñu ne moom kon moom mën nañoo jàpp moom mooy yàlla yàlla mooy moom ak nangam na xëy na juhalaaw yi dof yi mën nañoo jàpp loolu waaye kii loola sax moo amul ci texte bi loolu amul fii boo bëggee mu am da indi beneen texte boo xam ne dañ ci doon wax Seydina Muhammad ba ko yàlla di bind fan la ko bindee su boobaa nit ñi wax ci loolu waaye fii nag li fi ne moom bu wérut ay xadiis ngi fi yoo xam ne du wér moom ay ay alxuraan yu dul wér ndax fii li fi leere te moom lañ fi wax mooy baatu faatixi baati ibbi ibbi yonent bi lan la ibbi moom loo xam ne dañ ko tëjoon Cheikh Ahmad Tidiane ne mën nañoo mën nañoo wax li ñu tëjoon mën nañ koo fiire ay mbir yu bari yoo xam ne yépp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko tijji bokk na ci yi tëju woon mooy amuk mbindeef yi mbindeef yi seenuk am mbindeef yépp da yàlla daf leen a tëjoon ci suuratul adam ci xijaabul butuun maanaam daleen leen tëjoon ci foo xam ne dafa biiru ci ñàkk am kon am na lu leen war a génnee ñu jëlee ñu jóge ci adam juge ci ak ñàkk am ñëw ci ak wujud moo fi indi mooy tax mbindeef yi nekk fi nii mbindeef yii fi ne ñun ñëpp xam na nit ci adam lañ jóge loolu moom <laughs> kenn du ci werante mbindeef yi am seen wujud gii tey la fan lañ jóge adam avant ñuy am nag amuñu woon avant ñuy am lan moo xew ba ñoom mbindeef yi ñu jóge ci adam dem ci wujud loola am loola moo ko ibbi nag loola moo ibbi buntub adam mbindeef yi génnee fa dugg ci ëttub wujud bi lan lan moo xew ba loola am cheikh ne nag alfaatixi moom yonente yi mooy alfaatixi aji ibbi li ma uxliqa ca mbindeef yooyu maanaam mbindeef bu ko akkwaan yépp malaaka suuf si kii lépp lu dul yàlla rek ci adam la ne woon ci sababu sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa ci la loolu génnee foofu génnee ci adam ñëw ci wujud loolu wax bu leer la mu ne budul woon ak yonent bi nag yàlla du bind kenn jële ko ci adam indi ko ci wujud walaw laahu maa xalaqa allaahu mawjudan wala axrajahu min al adami ila al wujud bu du woon yonent bi yépp du am sallallahu alayhi wa léegi loolu lan la joteeg jaam bi mooy yàlla jotewuñ dara est-ce mën nañ cee dégg ne jaam bi mooy yàlla déedéet est-ce que mën nañ cee dégg na yonent bi mooy yàlla déedéet est ce que mën nañ cee dégg na yonent bi yàlla da ko dafa dagg ci leeram bind ko ci nga xam ne moom parti la ci yàlla subhanallah loolu est ce que mën nañ ko ci texte bi am na fi déedéet kon Moussa li wax fan la nekk du fii de moom te moom texte bii lañu ñu indil ne texte bi mooy fii di wax da doo jut te yonent bi ci boppam moom alfaatixi lañ koy tuddee moom loolu ci turam la bokk alfaatixi te moom moo ko tuddee boppam moom moo ne moom mooy faatixi waaw Moussa faatixi boobu lan la ibbi moom moom yonent bi lum ibbi boo bëggee xam yonent bi mooy faatixi da ngay dem ci moo xam musannafu ibnu abi sheyba wala musannafu abdurazaq assanaani da nga ko fekk xadis yi may wax wala nga dem ci kitaabu sunna bu ibnu abi aasim nga xam ne albani moo ko tax taxrij moom te albaani xadis bi yonent di waxee ne mooy faatix daf koo wéral moom albani fi nga xam ne e, yonent yépp dañoo jàq boo demee ci kitaabu sunna page trois cent numéro huit nga xam ne damay doyloo boobu rek bàyyi sax yëfalee nga ne innama bu'istu fatihan xaatiman yoneen tey wax innama bu'istu fatihan xaatiman ca musannaf ibnu abi shayba ak itam ca eh, ibnu abd abdurazaq musannaf abdurazaq waaye yooyu yëpp <coughs> doyloo naa lii nga xam ne albani moo ko taxrijal boppam muy kitaabu sunna bu ibnu abi asim ash hadis bi ñépp dañuy ñëw yonent bu nekk buñ demee di ko joytu ngir mu dimbali ñu ci yowmal qiyaamu tay ji e, ngir sauvé ñu day bañ danaan yi dem leen ci diw dem leen ci diw dem leen ci diw ci tënk ba ñëw ci yonent yàlla isa yonent yàlla isa ne leen man li ngeen di laaj mënuma ko ñu ne ko foo ñuy tegtal pour ñu dem fa mu ne itu abdan fataha allahu bihi wa xatam naa leen tegtal ngeen dem ci jaam boo xam ne te loolu kenn wax ko ci benn yonent ciy jaal yonent bu nekk bu naan dem leen ci diw rek ndax diw ku baax la demleen ci noot ndax diw yàlla wax na ci moom nang ndax dem ci du ndax dara fii nag isa danen dem leen ci jaam boo xam ne fataha allahu bihi ci moom la yàlla ibbee isa waxagul lii yàlla ibbee ci moom lan la yow Moussa maa ngi lay laaj li yàlla ibbee ci yonent bi lan la fataha allahu bihi wa xatam ci moom la yàlla tëjee li yàlla ibbee ci moom lan la li yàlla tëjee ci moom lan la te bañ demee itam fa yatuuna annabiya fa yaquluuna ya nabiya allah anta alladi fataha allahu bika wa xatam yow yonent yaay ki nga xam ne ci yow la yàlla ibbee ci yow la yàlla tëje loolu mooy la lan lañ ibbee ci moom lan lañ tëjee ci moom boo dàqee waxu cheikh ne dafa ibbee ci moom mbindeef yi ñu jóge ci ak ñàkk ñëw ci ak am loolu mi ngi amee ci sababu yonent bi sallallahu alayhi boo nee loolu amul dangay wax liñ ko ibbi dañ dañoo ibbi yonent bi dafa ibbi lan mooy faatixi ci lan lan la ibbi loo xam ne tëjoon nañ ko lan la ndax abwaabu rahmatil ilahiya cheikh nee na itam mi ngi ibbeekoo ci yonent bi salaay sallam xol yi nga xam ne dafa tëju woon mi ngi ibbee ci yonent bi salaay sallam mais boo ko jëlee ci xol kese ne xol yi ibbeeku woon mais yonent yàlla ibrahim ba mu ñëwee ibbi na ay xol yoo xam ne dafa tëju woon ci shirk yonent yàlla nu wax defoon na loolu yonent yàlla nangam defoon na loolu kon lii ci maani ci ay maanaam la bokk waaye maanaa ji gën a jëm talu nga xam ne moo jëkk ci maanaa yi mooy amuk jaam ñi ci boppam ci sababu yonent bi la sallallahu alayhi moom mooy faatixi ci jaam ñi nga xam ne dañ leen a tëjoon ci mbindeef yi nga xam ne dañ leen tëjoon ci ëkkwaan yi nga xam ne ñoom ñëpp dañoo nekkoon ci suuratu adam yonent ci sababam du yonent moo dem di leen ibbi yàlla moo ibbee ci yonent bi fatahallahu bihi yàlla moo ibbee ci yonent bi mbindeef yi ñu am loolu est-ce teg dana yàlla mooy yonent bi wala yonent bi mooy jaam yi jaam yi mooy yàlla lan la ci tegtale dara <laughs> amul lu mu jaxase yàlla dafa nekk yàlla yonent nekk yonent jaam yi nekk ay jaam yàlla jël jaamam bii di yonent ci sababam mu ibbee ci jaam ñi am waaye yonent boobu ak jaam ñoo ñépp ay mbindeefu yàlla lañ yàlla nekk kiy bind aji bind gi ائتوا عبدا فتح الله به وختم حديث بويرنغو الباني موم وخني اسناده صحيح على شرط الشيخين ولكنه موقوف على سلمان وهو الفارسي الا انه في حكم المرفوع لانه امر غيبي لا يمكن ان يقال بالراي ولا هو من الاسرائيليات والحديث أخرجه أخرج منه ابن أبي خزيمة nangam dégg nga أنت ci فتح الله بك allahu bika loola itam ma nga ci ibnu abi xuzayma tabaraani jël na ko yëpp albaani ko wax albaani moom xadis bi ne xadis bu wér la donte nag xadis bi du ci yonent bi salaa sallam la jóge ci dañ koy yemale ci salmaan alfarisi waaye nag dafay am xukmu rafi ndax lan Salman moom li wax mënu koo xamee ci xalaati boppam faw ci yonent bi la koy jële loolu mooy mawquufun lahu xukmu rafi kooku kenn mënu koo weddi waaw kon nag alfatixi lima ugliqa mooy yonent bi kooku wér na ci xadis moom ndax baatub lima ugliqa day ñëw di leeral rek waaye alfatixi saa yuñ ko waxee lima ugliqa tax booy ibbi da ngay ibbi luñ tëj luñ tijji ba noppi kenn mënu ko ibbiwaat kon alfatixi limaa ma kooku yonent moo saxaal ne moom mooy alfatixi li ma uxliqa léegi nag alfatixi li ma moom yonent lan lañ ibbi woon luñ tëjoon foofu la yonent ba nekk wax ma lan lañ ibbi woon lu mu tëjoon comme yonent bi loolu wér na ci moom ne moom mooy alfatixi li ma uxliqa léegi mën naa weranteeg yow ci liñ ibbi woon liñ lim ibbi te ko lan la man ma ne la mbindeef yi seenug am mi ngi sababoo ci yonent kon yonent moo ibbi mbindeef yi ñu jóge ci adam ñëw ci wujud yow boo contré loolu wax ma leneen loo xam ne dañ koo ibbi te mu tëju woon te ci yonent bi képp la ibbee ko lan la yàlla nag bindi jaamam am ay yoon yum leen jaarale lu mu jote ak jaam bi mooy yàlla te jaam bi mooy yàlla yàllaay jaam bi loolu mooy wax du ci Moussa Cissé te loolu tariqa tijaan dañ ne loolu ak kéeféer la Moussa ne yéen loolu ngeen wax ne ak kéeféer la yéen moom ngeen gëm yéen kon ñun nuñu kon xanaa ñun dañuy wax ne ñun ay yéeféer lañu xam naa damay taxaw foofu mu nekk euh, wax bu jëkk bi ndax firi na itam alxaatimi li sabaqa Moussa yëg na ne alfatih li ma uxliqa kenn mënu faa génne dara maanaam foofu moom fexe ba mu nekk waxdatu wujud mënta nekk moo tax mu ne fii sax am na feneen fu mu gën a leere mooy fii moom leere wu fi mu moom fen naa fen ba xam ne fen yi baaxul mu daal ne léegi nañ tuxu dem feneen léegi foofu muy tuxu di fa dem nag moom baatub at tajalliyaati ilaahiya la mun tafiri la xamul lan mooy tajalli baatub tajalli fa la ma tajallaa rabbuhu lil jabali ku ko firiroon Muusa day am jafe-jafe ba tey ndax tajallaa rabbuhu lil jabali loolu lu muy firi ak nu mu amee est-ce que yow baat bi rek nga war a xam war nga caa xam ne leneen de tajallaa ci arab mooy feeñ na kon yàlla feeñu na montagne bi nu mu ko feeñoo montagne bi dafa xool jëmm yàlla at ki wala yàlla dafa am lu mu wone lam wone lan la ndax yàlla tëjëlli buñ nee tëjëlli ilaahi rek du caagéene force yàlla moo naan xefet jaam bi tiim ko wala montagne bi tiim ko loolu mooy tëjëlli ilaahi moom musaa noonu la jàppee tëjëlli loolu dinañ ci ñëw nga xam ne xamut sax baat bi nga xam ne ca la léppam nekk ca la contram ya nekk waaw jaam bi xam nga ñoom ñi ngi naan dañuy gis yàlla ndax tëjëlli ilaahi maanaam tëjëlli ilaahi mooy gis yàlla daal léegi loolu dañ koy wutal beneen wax ndax loolu ci jawaayir lañ koy sukkandiku lépp li nga xam ne jawaayir wax na ko te wax ci baatub tajalli loolu la lay firi tajalli tajallaa lahu bismihi kaza loolu mooy lan moom kon su fekkee tajallaa moom yàlla feeñu na jaam bi wala nangam na ko wala def na ci moom tajalli rek mooy jëmm yàlla ji moo naan nii rek jaam bi jàkkaaru jëmm ji loolu mooy tëjal li maanaam Moussa dégg-dégg boobu la am loolu duñ koo yàkkamte kooku dañ koy bàyyi fële ba del siwaat ci beneen damaa bëgg a leeral pour tàggatoo ci loolu mooy ci tariqa tijaan dañu wax ne gëm-gëm bi Moussa bëgg ñoo taqal ku ko gëm yéeféer nga loolu loolu fii la ne téere bi ñu ngi koy ahlul xaq al aarifuuna billahi assaadatu suufiya kan moo ko bind cheikh Mouhamed Alxaafu Attijaani Almisri moom moo ko bind bokk ci boroom xam-xam yi nga xam ne ay muhaddis lañu maanaam bëri na ay boroom xam-xam yu jekk lool fànnub xadis ay taalibe góor gii lañu góor gi di ku siiw ci xam-xam siiw ci tariqa tijaan siiw ci di ci bind di ci wax kon moom dañ koy boole ci ñi gën a jekku tariqa bi. ñi nga xam ne ñoo ko gën a xam xam la ci jawaahir xam la ci jaamiu xam la ci tariqa bi xam am yëpp gën a xóotal seenub gëstu ñu gën a jekku mbir yi nekk ay marjia cala bokk moom góor gi cheikh mouhamad alxaafid attijaani ahlul xaq al aarifuuna billah assaadatu suufiya lii xam naa ne Moussa musta dégg sax baatu téere boobu ba koy am téere baa ngi nii ci loxo téere bii nag jawaahiru maani doo fekk benn chapitre ab bunt wala faslu wala baab buñ tuddee wax waxdatul wujud kon jawaahir mu ngi koy xool ba xam waxdu ma nga ci am nekku ci moom sëñ bi danga war a dem feneen la ko tax a jóg moom jawaahir mi ngi ciy wax te moom la wutal ay bunt wutal ko ay kii ay faslu fadlul wirdeeg dégg nga eh, nga néew tariqa be ku ko jàpp ak dundu cheikh ak jaar-jaaram ak yooyu masala yi cheikh traité eh, aay yiñ ko laaj baat yiñ ko laaj nangam ak nangam ay tafasiram ay rasailam ay fatawaam ay masail ilmiya yooyu yëpp ma nga ca kon nag du foofu rek lañu war a seetee pour xam ba xam ndax tariqa tijaan gëm nañ ko wala gëmuñu ko da ngay wër ci téere yi boo wëree ci téere yi da nga dajeeg téere boo xam ne moom la ñuy wax alxaq ahlul xaq al aarifuna billah as saadatu suufi foofu nag téré bi téré bu am solo la limi xamle daf caa bok mbir yu bëree bëree bëri waye daf caa bok walu wahdatul wujud mune wahdatul wujud gis nga ab buntu bopam la dégg nga nisbatul ila al makhluq lol itam ci walu wahdatul wujud lol benen buntu la azaliyatun nuril muhammadi fil khalqi lol benen buntu la yooyu yëpp عقيدة السادة الصوفية لول بن بنت ليب دفع أجو تي والو وجود اعتقاد الشيخ محي الدين ابن عربي نحن دفور ناكو في كروك ما نم پس پس ابن عربي هن ابن عربي موك بند البوبام پور ابن بيب جوت كي أهل الحق برام دفكو تا اندي بر بجيخ لي ابن عربي وح بونيو في تي اه وحدة وجود ci page 93 dan la wax ne Hindu wujud dan yi dañ ca am manam ñom dañu xalaat lan moy asasul wujud wujud bi fan la jóge ñu xalaat ci ba ñu dafa am nuñ ko gisé té moy lépp ñom dañ ko jëlé ci sawara ak nangam ak nangam mu ne mu décortiqué lu bëri daal de nag wa haadihi hiya wujud al hindusiya wa haada huwa al fanaau al hindusi alladi yusammunahu nirvana pas-pas boobu nag nga xam ne dañoo jël am mbir ne lii mooy cosaanu mbindeef yi lépp ci la génne nga xam ne su booba lépp day nekk menn mbir benn cosaan amul yàlla ak jaam ak nangam ak nangam lépp benn loolu mooy waxdatu wujud ca jaamukatu xërëm yi mune wa hadhihi al aqidatu al hindusiyya lam yakhtalif al muslimuna fi butlaaniha سواء في ذلك السلف والخلف من فقهاء ومحدثين وصوفية وصوفية ومتكلمين وقراء ومفسرين ني نيب يدبو والإجماع منعقد على أن ذات الباري عز وجل يستحيل أن تكون محلا للحوادث ولا الحوادث محلا لها mu ne loolu boroom xam-xam yépp sufiyanke yeeg ñu baax ñeeg salafu saalix xalaf yaag fuqahaa u muhaddisuun yeeg suufiyanke yeeg mutakallimuun yeeg mufassiruun yi jullit ñépp ñoo dëppoo ne pas-pas boobu pas-pas bu wérul la jullit yépp itam ñoo dëppoone ne yàlla mu du jaxasoog xawaadis yi xawaadis yi duñ mën a dugganteeg yàlla waaw loolu moom wax ju leer naññ la wax na ca lu bëree bëree bari nag damay daaneel nisbatul xaaliqi ilal maxluuq yàlla ak jaam ñi lu ñu séq loolu ab buntu boppam la boo ko liiree da xam ba xam ñun tijaan dañoo gëmum gëmuñu foofu nag daf caa wax ne benn nga wax ne yàlla yàlla moom moo jël ci jëmmam xaaj ko wala bu dagg ca dara wala nangam ak nangam wala lu mën doon daal cay bind mbindeef yii nga xam ne mbindeef yi fa fa hiya huwa wa huwa hiya xaqiqatan loolu am na ñenn ñu gëm loolu mooy أن الخالق أثر في ذاته فحولها كلها أو بعضها فصيرها هذه الكائنات يالا دا فا جيل جيمم موم mu xaaj ko wala mu dagg ca wala mu jël jëmmam itam produire ci biir jëmmam moom yàlla mbindeef yii su boba mbindeef yii ñoy yàlla yàlla moy mbindeef yi fa hiya huwa kainaat yi mooy yàlla wa huwa hiya yàlla moy kainaat yi mooy mbindeef yi xaqiqatan loolu am ñu gis lolu ولا خلاف بين المسلمين الصوفية منهم وغير الصوفية في أن هذه عقيدة باطلة والقائل بها كافر مشرك بالله تعالى mu ne sikk amul nag mbindeef yépp jullit ñépp dëppoo nañ moo xam sufiyanke yaag ñedul sufiyanke ñoo dëppoo ne pas-pas bii ne yàlla dafa jëmmam ci boppam mu produire ci biir jëmmam mbindeef yi génne leen loolu pas-pas bu safaanoog lislaam la mu jël ci jëmmam ji dagg ci walla xaaj ci bind ci leneen yi nga xam ne ñoom bind ñoom daggit lañ ci moom loolu itam pas-pas bu yàqu la wal qaa'ilu biha kaafirun mushrikun billah ki gëm ki gëm loolu ak di ko wax nag yéeféer la bokkaalekatu yàlla la ki koy wax kilifa la ci tariqa bi kon léegi naka la tarixa bi di gëmee loolu kon moom bu boobaa dana mën a nekk ci tarixa bi moom te lu waaye di liir lii xam na ko moom lu waaye di xam xam na ko lu waaye di gis gis na ko lu waaye di yër yër na ko moom nu muy gëmee loolu moom kon ay fen la soo xamul nag da ngay laajte soo xamul wa innahu id araada allahu nashatana abaana min nuurihi nuuran nabil alami wa xalqu l axlaaqi baasu l anbiya li zuhurihim muqaddimatun fa hum wala tanami إن العوالم عاليها وسافلها أشعة طلعت من boo xamul yépp lu muy tekk da ngay laaj nag ñu wax la waaye doo tuumaal ay nit ci loo xam ne ay fen moo moo ko moo ko mu ne nag wa hada baatilun maanaam loolu loolu li mu sànq loolu moom baatil la mu ne waaye loolu nag wasaniyuna wasa wasani al alhunuut lañ koy askanle maanaam indien yi ña cay jaamu xëram ñoom ñoo gëmee yàlla nii waaw waaye du ay jullit mu ne am na ñoo xam ne nag dañuy benn ñu wax ne jaam yépp ñoo ñoom dañoo taxaw seen taxawaayu bopp maanaam dañoo dañoo dañoo am seen wujudu bopp nga xam ne sequñoog yàlla dara mu ne loolu itam baatil la lislaam nangu ko jullit ñépp ñoo ci dëppoo léegi nag benn beneen hypothèse moo des mooy jaam ñépp yàlla moo leen bind te jaam ñi dañoo am iftiqaar ak aajo woo lool ci yàlla ci seenug am ci seenug nekk ci seenug wax ci seenug jëf ci seenug taxaw ci seen lu doon mu mel ne jaam ñi moom budul yàlla taxawuñu jaam yi dañ leen a téye nga xam ne wa huwa waxdahu alganiyu bi daatihi te jaam ñooñu laa yasixu an tastagni anhu bi xaal maanaam jaam yi mënuñu taqalikoo ak seen boroom maanaam mënuñu amul fenn ne mën nañ faa doxal seen bopp dafa mel ne ñoom amuñu sax ak wujud ak nekk sax amuñu ko ak nekk ci biir nekku yàlla ci la jaam ci taxawe maanaam yàlla moo taxaw jaam ñi wéeru ci moom kon kan mo taxaw da ngay gis lu bëri taxaw waye nek kenn taxaw lolu moy al kasra ak wahda manam kenn ki ak bari way bi jaam yi li ñi bëri bëree bëri ak wujud amuñu ko ci wujudu yàlla lañ nek kon wujud gi yeb ben lolu moy wahdatul wujud mune wa hadha aynul qawli bi waxdatil wujud allati yaaniha suufiya mu ne sufiyanke yi bu ñuy wax baatu waxdatul wujud nag lii lañ ci jublu mooy jaam ñépp amuñu ak nekk amuñu ko ci biir nekku yàlla ca lañu nekkee dégg nga mu ne wa waxdatul wujudi bi hada al maana laa yasixu li muminin illa al qawlu biha mu ne waxdatul wujud bii nag ab jullit mënta wax leneen lu dul lii fa nisbatul maxluuqi ila xaaliqihi nisbatu liftiqaari zaati ila al gina mutlaqi zaati maanaam yàlla lim séq ak jaam yi du du jaam yi ñooy jëmmi yàlla yàlla mooy jëmmi jaam bi déedéet waaye ñu ngi séq séqu soxla woo goo xam ne dafa ancré wu ci kooku ci jaam bi ci ki nga xam ne soxlawul dara ñàkk soxlaam gi ancré wu ci moom nga xam moom mëntu sukkandiku ci lenn moom yàlla mooy borom wujudul mutlaq alwaajib borom liftiqaarul mutlaq zaat yi nag moom mooy jaam bi moom ci ak nekkam yàlla dafa nekk da gis jaam ñëpp taxaw ndeke taxawuñ kon yàlla rekk a taxaw ndax bu dul woon yàlla ñoom duñu am duñ taxaw maanaam mbooloo mu wéeru ci taatu miir bi miir bi rek fi nekk gis nga ñu bëri taxaw nag waaye kenn rek ka taxaw mooy miir bi bu miir bi daanu woon léppay daanu kon kay kenn newu fi mu ne ci loolu nag moo tax suñ ne la eh, laa wujuda laa mawjuda illa allah kenn nekku fi kudul yàlla mooy kenn taxawulul sa bopp kudul yàlla lii da ko leeral ay phase yu bëree bëree bëree bëri mu ne loolu nag moom la Muhyiddin Ibnu Arabi wax ca téeréem ba di futuxaatul makkiye ca buntu e, juróom benn fukkeel ak juróom ñeent ci futuxaat mooy wax ba wax ne alaalamu kulluhu mawjudun an adam wa wujuduhu mustafaadun min wujudi man awjadahu wa huwa allah fa muxaalun an yakuna alaalamu azaliya alwujudi لأن حقيقة الموجد أن يوجد ما لم يكن موصوفا عند نفسه بالوجود وهو المعدوم لا أنه يوجد ما كان موجودا أزلا فإن ذلك محال فإن العالم كله قائم بغيره لا بنفسه والسلام wax وخ نيوم دا فا لير ناني ناني ناني ناني ناني ناني naññ وخ wax موم لا ابن تيميه وخ ابن تيميه دا فا وخ ne wal kainatu kainat yep yi am ni lolou mi ngi ko wax ci jukkim ñaarel ci photo ci majmuul fatawa jukkim ñaarel page 405 mune wal kainatu kainat yep man minde fi ak waan yep yep laysa laha min nafsiha shay'un amu dara ci bopam moom kainaat yi ñu mu gën koo leeral de mu ne bal hiya kainaat yëpp li am sax mooy adamun mahd maanaam ak ñàkk gu set lañu ñoom néewuñu fi nekkati wa nafyun sirf dañ ko dàq dàq gu wóor kainaat yi de man ak yow ak yéy ñun ñëpp Ibnu Taymiyya dañoo dàq ñun amuñu yàlla rek am <laughs> loolu mooy wax da tuuju loolu la sufiyanke yi wax wa ma biha min wujudin li kainati am ci ak nekk ak wujud fa minhu ci yàlla la jóge wa bihi te ci yàlla lay doxee maanaam daf ci a jóge ba noppi nag waaye buy wujud ga di am nag di dox di tege di di di di wér kooka ci yàlla itam la loola di sukkandiku kon wujuduk ibnu taymiyaay wax de wujuduk kainaat yee mën nañ ko itibaar ne ndeke du wujud adam la ndax kainaat yi ci boppam adam lañu seen wujud gi gi ñu am du wujud de ci yàlla la jóge te ci yàlla lay amee itam yàlla joxu leen ko ñu amug wujud moom itam mu taxaw mu taxaw ne amug wujudu boppam déedéet ñoom bihi waaw seen wujud gi mi ngi amee ci yàlla maanaam kon wujudug yàlla fi ne jaam ñi taxaw ci am ci amee ci kon jaab yëpp li ñuy bari bari kenn na fi ne mooy yàlla wax ji dafa leer ibnu taymiya loolu la wax demal seeti ko majmuul fatawa te nga wax ne ibnu taymiya dafa gëm wax waxdatul wujud loolu nga xam ne mooy wax waxdatul wujud nag loolu moom dañ koo gëm maanaam jullit ñépp sax dañ ko war a gëm waaye nag xam-xam ak xel moo cay toll ibnu taymiya wax na ko fii mu leer lool lii mu wax itam moom la suufiyanke yi wax yàlla mooy jaam bi jaam bi mooy yàlla nag amul mutasawif bu wax loolu waxuma la ay tariqa tijaan waxuma la ay boromi xam-xam waxuma la ak waaye tariqa bi ci moom daa dàq loolu boo demee nga liiri ji ahlul xaq ay bunt yu bëri day dàq yàllaay jaam jaama yàlla naan wax dëgg wujj eh, kéeféer la demal fële li ñu gëm lan nag boo demee mu wax la ko السلام عليكم ورحمة الله